su ma gisee waa Kabada dama day rus li tax waaye loolu yëpp tamit su ma dama dee bu neexee yàlla parce que waa Kabada lañ de wax ne 1996 election ñi wax ne waa Kabada yëpp Pël lañ du waa Gambie suñu winee rek nañ leen daaxa ndax ñoo ñu ko wax sax waa lañ soo ko xamul dem leen si history of the Gambia fi ngeen jógee yéen xam ngeen ko loolu da am tur boobu ñu ne ku nekk gan la fii xam nga gani gan su toogee di wax ñeneen gan lañ xanaa xaw ma kon dof moo ñëw amante na ñu bari ñu ngay coow fii ne ñoom moom dëkk bi seen duga si Gambia is less than 200 years lu wér mu ngi suma loxo te loo xam ne ma def ma ko tubaab bi tubaab yi xam Africa am map bi ñoom ñoo ma ko jox history bi history of the Gambia wax ma tubaab bi wax bi nga xam ne loolu fen la waaye real history Gambia ko wane woon naa ko woon TV naka la Gambia mel kan mooy gan an kan moo nekkut gan ñi nekka gani gan te li ko li fii xam nañ ko li leen toogloo xam nañ ko waashen nekka fii yëpp is less than 200 years soo ngeen dem laajte seen history kon affaire yi kan mooy Gambien ak kan moo nekk Gambien loolu ñoom waruñ ko wax eh, xam naa ne suma tooma bi su ma waxee affaire yi sooma daf dee tiit chief Even governors as governor as suma has some and update it waa uh, mbota ak mbota li nekk seen diggante xamante nañ kan moo war a daw kan xam nañ li tax suñu mbota bi gisee kuuto bi mu Euh, mboota bi mu ngi ko gisee lekka euh, <laughs> mbaɗen sikundankol alko al natal ngamoyle yalon tuubo mune ka lankene ma juma salo al tuubital jumasalo kanala wala november 24 sila hamda tuub ngeen o oh, alman tuubi bara kumo tannin fulo muneti carte fayo 2001 naa leen fële si benn defoon meeting 2006 i am not foo xam ne li ma is less than three minutes. <laughs> ma ne leen. sànni karta Gambia. Lubahla. Lita. la. li tax su fekkee ne karta amut. ni kon kenn kenn xam ne. Seekunda. ima la fi ñaata taala ñin carte fayo amanke yaya jame ni mo temat wala tinante campagne o kela e eh, nin samo nin toto ko aɓe mansa ñinila samo bulu membukammalo ala lonne kono nin ta wulta ngo gada campagne olante nin toto woya tara atol gambe mom num fisir wallete almala fi ñantota la walatina ntata la campagne ola sanji tannin sa eh, eh, worola sagne e eh, ntanin toto e wuli ko nka banko fofo ntanin toto ŋalon ko nin bota dan i be dunnatol mool kono ka, ka fo ko yala nene ye al nenel ntenten no ga yoyu ñi wax ne dañoo ut euh, libin 2001 lan lañ leen wax ñu ne ndekete deal boobu dañ defoon IEC ñoo def deal bi ak British government bi mooy lan dañoo indi yellow tokens yoo xam ne te loolu sax it was illegal parce que tokens yi ñoo voté warta depict any particular waaye British yi ñu ne dañ ko jox AIC fekkee ñu ngi def deal ak AIC ñi fa nekkoon ñoo xam ne daaxaanaa leen waxuñ APRC dara ñoo ñooñu ñëw di woor si seen biir ne dafa bugg a bàyyi euh, moom sonna na dafa bugg a jox Ousseynou Dabo nguur gi waaye dafa ragal waa APRC looloo tax firnde bi mooy lan soo leen gisee yëloo tokku rek ngeen xam ne mu leen a signal ne ngee bootal ko soo su ma waxee ne du ma campagne mun nañoo wa ñëw wax di seen fen loolu du benn dëgg dañoo ne ah moom sax bëggut a ñëw waaye xamul nu mu ko waxee mu du campagne man lu du ma campagne dama bëgg a xam ñan ñooy gor si Gambia ñan ñooy gër eh, ñoo góom yàlla ñan ñoo bëgg a dem kanam ak ñoo xam ne bala naal ñooñu laa dee bëgg parce que bala naa fenn rek nga ko teg. cono nga buga joko cono am bi yow nga continuer ñoo xam ne buga nañoo dem kanam wo kate keso ni manya na mo do so na ya lo abe patio la kamara gamne fo ko wala lebi ko president jamma bara iko ma hangi APS nam wala walatena eh, nga ataman sero mu muneti mele be wo kumo toñandi ala kesoɓe kala nete mum ko ni wo jadoron isa lon ko walem uh, eh, taman amanta campagne o kela nan hano baba ga president la sa ko campagne o kela dina ko ta na mo pare ko wala na wala ka 15 years maa ngi leen ku la yëg nga yëg ko ku la xam nga xam ko ku la faalewut bul ko faale so ñi wax ne ñëw nañ ah des na si ñoom novembre 25 moom dina ñëw dina leer waaye li wóor mooy ku bugut bul ma dara bugguloo APRC te tama ngeen di wax ne <laughs> réeral soo réeree benn bés benn yoon nga fola ñaari yoon nga fola ñeneenti yoon bi yow yaay dof doflu am na ñoo xam Depuis 1990,